الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد المكين وعلى اله وصحبه سيدنا الوان وتمكين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بوكي جلدي بوكي طالبي سين بوكم جولي سين بوكم طالبي مو خيبو دي المختار ام سيرن مام تيرنو موي وقتان اك يين واخجي نك موي لي وارال لي كو وارال موي بيسو محمد المختار سونو باي دي سونو سيرن بيس بي موي دافال سيرن شيخو بالا نو تيو في noonu ko Modou maxtaar waxee ndax euh, nun sëti Serigne Cheikh Awa Balla yi li nu war a mooy topp ci suñu kilifa yooyu te ñoom rek la ñuy roy ndax loolu mu wax ne euh, tey euh, ñun dañoo dañoo war a topp ci ñoom dañ ko dañoo gis ñoom ñu di ko doxal doxalin wu rafet mooy tey Cheikh Seydil Mokhtar borom dëkk bi di Serigne Cheikh Awa Balla fi fi jógee 1976 ba léegi sëñ Modou Makhtar sëñ Ateex sëñ Mahfous sëñ Thierno Mara sëñ Mamor sëñ Ahma ak mboolem njabootu suñu Seexu Balla gi góor ak jigéen topp nañ sëriñ maam Thierno toppin wu rafet woo xam ne bii noo ngi ci teg suñu bët euh, di xool kon noonu danoo ànd nag takku def wenn say topp ci ñoom fas yéene roy ci ñoom fas leen yéene noppal lépp lu di coono ndax ñoom kat ñooy sëriñ si noonu ay dongo lañ di ay taalu bi ku ne xam na ne sëñ Modou Makhtar mooy jëwriñi sëriñ maam Thierno te jëwriñ jooju waxu ko rek da ko wax jëf ko te Cheikh Abdoulaye Mbacké nee na woon jëf ma naa yóbbaale wax wax du yóbbaale jëf te du waxi kese da ko wax jëf ko ci loo xam ne lii ku xool gis ko ku lamb daj ko ndax topp gi mu topp sëñ maam Thierno nun ci liñ fekke ba léegi ban xàmmee ba léegi lépp lu sëñ maam Thierno mos a joxe ndigal wala doomi Serigne Touba jox ko ko ndigal sëñ Modou Makhtar mooy ne ci kanam. te lu mu song daane ko te loolu teg nañ suñu bët ci yu baree baree bare bare ku bëgg sëriñ bi la ku ko dëggal la ku ko topp la ku ko jàpp la ku ko jàppale la ndax lii ñii fi jaar léegi wax dëkk bi bi suñ seexu bala jógee booba ay jenn jàkka la fi bàyyi tey jumaa ngi fi jàkka ngi fi yu bare ngi waaye loolu damay bëgg nit ñi xam ne loolu sëñ maam bu ko defee yàlla ak njabootu suñ seexu bala ak rakkam yi moo tax mu man ko ndax jàpp nañ ko jàppale nañ ko lu mu mës sumb rek yëkkati ko jàppale nañ ko ci sëñ Mourou Maxtaar tudde na sëñ maam Thierno doom tudde soxna Dior wu jurum doom tudde soxna Taay doom ba fi jógee ba léegi màggalu tubaa gu ne yeewal na sëñ bi yëkk wu mat bu ëpp yëkk yi màggalu daaru su def na ko màggalu daaru mar naan gu nekk def na ko ak addi yi ne sëriñ bi da koy sas mu joxe ko addi yi ne sax moo koy coobareel boppam yëkkati ko jox sëriñ bi kon mën naa ne 1976 ba léegi kuy calculer boo calculer màggali Tuubaa yi fi dox at mu ne man nga la joxna na sëñ bi yetti nak ba yent musta manki man ba ma xamee ba léegi jóge ci daara ja ñibbi si fii ne ci wadu sëriñ bi di tarbiya ba léegi at mu jot loolu defal nako ko sëriñ te ak at at yi nga xam mom lako la bi sax at mu jot mu yëkëti ko joxe nak buñ ko gisé se yi war and takku nek ben nek seen ginaaw te li ci mujj barki dem rek bi muy am gan fi ci tubaruf président de la république Macky Sall nga xam ne mooy pouvoir bi gën a rëy ci réew mi di ko gane si kero ñun ñëpp seere na ne sëñ Maxtaar mii ñëw na fa ñetti yoon di seet si sëriñ bi ak di xool liggéey bi nu muy doxe ca bis ba ku ne xam na ne taxawaay ba ak toogaay boobu metti na ci moom waaye sëñ Modou Mahfouz sëñ Ateex sëñ Ahma ak yëpp ñoo ko ànd ànd ci niñ ko tàmbalee ba ni mu jeexe ku ne xam na gis nañ ko ñun ñii ak njaboot ay seeni njaboot gis na ko kon nak nun sët da ngeen xamne no ngi maase and takku nek ci ginaaw sun kilifa yooyu buñ diglé nu def buñ téré nu bàyyi buñ la buñ la jé joxé buñ nu yéne nu dem seen sen rek ak seen seen digal rek ci la ñuy fas yéene nekk seen ngërëm it la bëggul lan lu seen ndax bir noonu ne liñ am ngërëmul sun cheikhou bala mo leen ko may ndax mag ñi ñi waxtanal da nga xamne dañu andon ak ñom moy ñu ñi fi jaar légui ak ñi nga xamne ñi ci dëkk bi ñi waxtaan su dañuy wax ne seen wayjur yi de liñ am seexu bàlla jur rek mayu leen ko dañoo futti ko laxasaayu lëggeel ko ba am ngërëm kon nag bu buñ xoolee ca la ñu di ko doxal ak niñ demee tey te ñu ngi topp ci ganaaw sëñ maam Thierno lu mu digle ña ca lu mu laaj ñu joxe ko fu mu woote ñu fekk ko fa kon buñ goree noonu ñii dañoo war a topp yoon woowu te loolu ñoom ci lañ nekk kon nag maa ngi wax ci turu sët yëpp suñ àll yu moom suñ Mouhamadul Fadil moom ma ci mag waaye ñi des ñëpp samay rakk lañ mangi ngi woo nu and takku def wenn say lu bu ko bu sëñ maam Thierno xewle nu xamne señ sëñ xewle señ maam Fos xewle señ ata xewle ñun ñep ñu and ni def màggalu daru maanaam ñetti tam xarit bis bi nga xamne al almarhum Cheikh Seydil mukhtar ci lañu bisoon joge màkkatal mukaram te señ mam ci di ko màggal bis bi nga xamne señ mudu sëñ da koy magal bis bi nga xamne ci la wujj woon borom at mu jot mu doliko ay ñaan ngir famu nek yalla doliko leer doliko ay xewal nu and takku ci di ko def ku xewle ci doomi Sëñ Seexu Balla yi nun sët yi noo war a takku taxaw lu ca dib coono nun noo ko war a féetewoo lu ca bi liggéey nun noo ko war a def ànd ko ak taalibe yi ndax kat sëñ maam Thierno dëgg la mooy xalifab kër gi moom la fi yàlla teg muy xalifab kër gi am na jëwriñ yu mat jëwriñ yoo xam ne ji mat na jëwriñ sëkk muy sëñ Modou Mokhtar waxtu wu ne mi ngi déglu ndigalu sëñ maam Thierno bii rek bi ñëwee fii loolu la wax na ngeen xamne suñ maam Thierno mooy sama sëriñ mom la yakar aduna ak alakhir lepp lu mu dégle ma nga ci te ma mu tere tol malaj dana ko jox inshallah allah wax nañu ko fi bik kon nak nun seudi nan and takku nekk benn nekk seen to gor gor no ngi sant ñi fi tew ñep di gëreem ñep man nan ne fi ci jotaay bi seudi seigne cheikh bal ak seudi seigne Mudaa bal yep ben lañ ñep ñep ñep fu bok jaxaso nek ñun ñep it li ñu bëgg moy serigne bi rek na ngeen magi talibé yi nga xamne yena iya, andon ak sunu mam walba ko andak sunu sunu bay na ngeen ñaanal ban am ngërëm ndax fu ngeen nu deg wala fu ngeen nu gis kat lol dong la ñuy yëngatu moom la ñuy xent amunu genn bëgg amunu yaari bëgg ndax leer non liñ bëgg kenn ku ci ne bo amé sa ngërëmul bay la nga bëgg lepp nga ci biir ta man de nima ko yéenee sama bop wallahi la si barki Seexul khadim la ko yéenee ñëpp barki Seexul khadim ni moy bëgg mam mam Cerno la bëgg seut bu am sa ngërëmul bay. na ngeen nu ko ñaanal ban am ko na ngeen nu ko ñaanal banam ko danoo jaayante sunu njural dañ koo jaay jënd ko ak taalibe fas leen yéen a lëggeel fas leen yéen lépp fu ñu waroon dem te mënatuñ faa dem nu demal leen fa fu ñu war a taxaw bu ñu mën a taxaw nu taxaw leen fa lu ñu war a def nu defal leen ko ban tëlee door àgg ci ñoom kon nag na ngeen xam ne yéen taalibe yi suñ maam Thierno dégg naa mu ne suñ seexaw balla moo ko xam ne taalibe gub sëriñ kenn ku ne sagu morom ku ñu sagu na da ngay fexe motub sag te yéen taalibe yi de mën ngeen ub sag ndax luñ soxla buku buku buku ko ci làmmiñ seigne mam Thierno dug ci nop seigne Mbourou makhtar bu ko wote ngeen def ko na ko bëggee moy xel kom moy gelor moy daru manan gi moy tubaaro moy fu meuna don lepp man de ba ma ci daara ji ñibbi si ba léegi ndigal lu ma sa a seigne mam maam lu joxe ko bu ci nop seigne makhtar bu ko songee talu wi ànd ak ko ci lolé nak yalla na yag lool xam am xëy nun nun yeen nun ngeen am waye nun di yeen rek la nam yeen yeen la ni sago kon nan tak suñ ndigg te gor gor da ñaan suñ kilifa yalla yag leen fi lool ci barke Seexul Xaadim ndax kat tek nan ñu ci aw yoon buñ doon tek fenn wala ñu di xol ben beut ci ci lu bax yalla ak ñoom ndax buñ nu yarutoon tek ñu ci aw yoon nok ñepp yam wala ñu yes ñepp sax kon noongi noongi ñaan yeen taalibe lool nang koy saraxu diko ko yalaan ngeen ñaanal suñ kil suñ kilifa yooyu nañ fi yag ta and ak wér noongi seen ginaaw rek fa seen ndigal lu jog noo nga ci te duñu seen ci lenn luy téré wala lu bu nu saytaane ba ne ba dugal lu ci luñ tere duñu ko terewaat du ñaar lool noo ngi leen koy séral noo ngi ñaan nak bis bi ni ñu ko tambulé ci bismillahir rahmanir rahim yalla jeex ci alhamdulillahir rabbil alamin jàmm ak salam te am ci ngeerumul sëñ bi bëgg nañ lool ndax fu ne ab taale bi jóge na fa mag ñaan non ak sëñ Seexu Baal tey mag mu ci ne sag njaboot ñi ngi fi and eh, japp ci liggéey bi na sëñ bi sanc won dëkk bi 1933 bam koy sanc ñu naan ko amul ko kott ak loy loy looy bu dëkk te yaakaar naa njënd la te bi mu sañ fii 1933 mag ñi nett lañu ko loolu la ñuy wax dañuy wax naan comme lu côté Colette te ñaar la woon ci taalibe jàpp ma seen diir boobu loolu lañ ko daan loolu lañ ko daan wax ne ko amul côté Colette looy sañ ci dëkk waaye tey njënd la moo fi njëkk am pontraite moo ko njëkk am fii 1922 la jënd oto 1900 la fi ñëw ci Guy Ngura 1927 la li ñuy bàjj na waaye lu mu fi bàyyi woon njabootam ngi yokk nañ ko dara dellu ci ginnaaw. loole nag gis nañ ko nun nii noo ngi xool loola na ngeen xam ne fii rek la la la nekk da ngeen nu ñaanal bu baax mag ñooñu sant nañ leen bu baax a baax ndax dégg naa sëñ maam Thierno muy wax ne fii de lu faay am ci tuyaaba ñu am ci lu faay def ci lu baax ñu am ci ndax fii ñoo ko fàkk ñoo fàkk fii di 1933 ba mu xumu neex lool suñ Seexu Balla daxeet jóge fi dem Daaru Wahab sanc ko 1960 tey boo demee lépp nga fa. 1970 mu sanc Daaru Minam te ñooñee ñoo doon jànkoonte bukki yeeg jaan yeeg jiidi yeeg coono bi di lekk sumul ba àgg nañ ci Iba Ndaw nett na ma ne daa nañ lekk am sumul bu ñu wetti ci kaw janj yi dañu dem noor yi ñëw fii Daaru Minam noor si ba delluwaat dool dellu ko tooyalaat di ko lekk sëñ bay seen mii booba danaa wax ne boo boo boo taxan jarul sori boo jógee loo daal ak mattal wala jaan rek loolu nett lañu ko ta lolou mag mag seeni wayjur ñoko defon ngeen wala wëlbati ko àndaat ak sunuy bay kon na ngeen xamne ne fofu ngeen nek rek lan nek li ngeen bëgg rek lan bëgg muy ngërëm na ngeen nuko ñaanal nu am ko sun xol sedna na xel dalna ndax mag ñu daru nañ señ bi señ bi mu sancee dekk bi mag ñi fi andiwoon ñu jàngale alquran ku melni ni Baye Masseer ku melni señ Baba ku melni señ sëñ tay fofu dem daara jooju ngay riir dafa yok way dara ko ci jàkke yi dafa yok jumaa yi dafa yok du juma ji le la fune obalam fu ne juma nga fa tay te day gëna yok inshallah kon nak na ngeen xamne nun no ngi tak suñu ndigg laxasaayu gor fas fasiyene nek ci ndigalu suñu kilifa nek seen ite lu seen ite yeen taalibe yi de moy suñu ite nun ndax yeen rek la nam no ngeen ba àjjana inshallah lol no ngi ko koy ñep ma ngi sama rak yep nak di and ak ñom ci lepp man ku xeebu laa xëy na def nañ ma kilifa moom ma def kilifa jox nañ ma cër biñ ma war a jox waaye maa ngi woo sama rakk yëpp sëñ Xalil ak i rakkam bi yëpp sëñ Ahma moom sëñ Ateex ak i rakkam bi yëpp sëñ Baye Cheikh moom sëñ Modou ak i rakkam bi yëpp ak Sidim sëñ Ahma ak sëñ Thierno Mara sunu rakk yëpp maa ngi leen diis ñaan nan góor góorlu lu nekkoon ci lu baax nan ko dolli ku ci la nu jóg taxaw taxaw loola ba mu jeex takk ba sedd guy nu delluwaat suñu itte te nu góorgóorlu te xam na ngërëm rek. moo moo moo moo am solo ndax sunu waajur yi kat dañoo liggéeyal seeni waajur bañ gërëm leen Cheikh Ahmadul ma Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul dafa liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu gërëm ko jàpp ci loxoom ba yóbbu ko ci yàlla sun yàlla sunu borom tabaaraka taala jàppaat ci loxoom andi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba moo am turu Xaadimu Rasuul moom dong ko am te ñu doon wut yàlla bari nañ lool Sëriñ Tuubaa fekk na fi baax waaye moo fi indi gën fekk na fi baax waaye moo fi indi gën moo ko fi andi daf koo liggéeyal ba am ngërëmam borom daaru muxti jaayanteeg mu liggéeyal ko ba am ngërëmam suñ seexu bàll mi liggéeyal borom daaru ba am ngërëmam suñ wayjur yi liggéeyal suñ seexu bàll ba am seen ngërëm ba am ngërëm nun ñi loolee lan jaayante lool lan fas na ngeen am ko na ngeen nu am seen ngërëm sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp suñu xol sedd na sunum xel dal na ndax feek suñ kilifa yaa ngi suñ ganam rek suñ xel di dal ndax lu baax lañ ñu ñu ngi nuy teg ci aw yoon ñu ngi nuy jubbanti ñu ngi nuy ñaanal ñu ngi nuy boole suñ maxtaar li mu wax fii démb kenn mënu ko weesu te ñun ñëpp benn lañ xëy na man mi jiitu de maay ku ñàkk solo waaye sama rakk yëpp gërëm naa leen sant naa leen ndax li may xeebu xeebu barki dem ma wootee daaru menam rek ñëpp fa teew ñëpp fa teew fekk si ma te loolu ma wax dañ koo rey ci ñoom rek barki dem ku ne gis na sëñ Moudou Mahfouz sëñ Ateex ak sëñ Ahmad nañ ànd ak sëñ maam Thierno fa lañ yendu ba président ñëw ba dix heures ci guddi fu sëñ bi taxaw taxaw nañ fa fu lu sëñ bi nekk ñu nekk ci ak moom ñu taxawal fa sëñ maxtaar xam ne mooy jëwriñu sëñ bi waaye coono bi ak taxawaay bi metti na xam nañ ne mënu ko moo tax bañ ba président ñëwee ba def discours ba waxtaan ba pare sëñ bi da demal nu ji sëñ Mudu Maxtaar te xam ne mooy moom sëñ maam Thierno moom mooy sëñ maxtaar da ko demal dëppal dellu siyaare ji sëñ Mudu Maxtaar nga xam na ne benn lañ ñoo bokk Cheikh Awa Balla te biig sëñ Maxtaar nettali moo ko fii ba leen di Cheikh Awa Balla di boole ñuy jàng ci përi ci yu bari yàlla boo na leen ci ñu ànd àndin wu rafet kon àndin woo yal na gën a rafet yal na gën a yàgg ci barki Cheikhul Khadim